mbokki téléspectateurs yi jàkkaarloog ñoom di ñu seetaan ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fetliwaat sunu yaakaar ci Seyxuna Ahmadul Xadim ñoo ngi nuyu mbooleem ëtti diine yëpp di nuyu mbooleem kër yi diine yëpp di nuyu <clears throat> Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa ak mbooleem ñi mu bokkal yoonu murid yëpp bokk yi noo amaat mbégte ci dellusiwaat ak yéen ci seen émission bii di xawlal mazahib al arbaa tey jii ñu nekk ci sunu ñaareelu numéro di ko ànd ak sunu mbokk Cheikh Abdoul Ahad Sané euh, ginnaaw bu ngeen ñu toppoo ci émission bu njëkk bi ci lan mooy mazhab yaakaar naa ne ñëwoon na ci ak ay leeral Cheikh Abdoul Ahad ginnaaw bu ñu la bàyyee nga nuyoo ak bokki téléspectateurs yi tey jii bëggoon nañoo nga ñëw ak ñun ci boo ñu leeralee lan mooy mazhab ba noppi ñaata mazhab moo am yoo xamante ni bi tënku na ci biir diinay islaam bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi am mbégte dajewaat ak yéen ci sunu ñaareelu numéro ci émission bii ñu tuddee xawla al madahib al arbaa mu doon émission boo xam ni comme ni ñu ko waxe woon fàttalante la ak jàngalante la nga xam ni moo aju ci wàllu ngir yi surtout nag ngir yi nga xam ni ñooy ngir yi gën a fés ci lislaam ci jataay wi weesu taxawoon nañu tuuti ci jàngat li nga xam ni mooy almadhab te mooy ngir ci boppam jataayu tey bii dañ ko jagleel eh, ci li nga xam ni mooy limu madahib yi am yi am nag bu ñu ko waxee waxuñu madahib yi am ci àdduna bi mm-hmm. waxuñu it madahib yi am ci yeneeni idéologie donte dañoo bokk ci lislaam mm-hmm. waaye madahib yi am ci biir ahlu sunna wal ndax ñun ci mbaar moomu lañu bokk lañuy lijjanti ci suufu mbaar moomu lañ koy lijjantee eh, ahlu sunna jamaa seeni ngir bari na lool dëgg la sax nag eh, la ca gën a siiw mooy ñeenti ngir yi almadahibul arbaa yi nga xam ni sunu kilifa yi sunu sang yi xam nañu ko te nag daan nañ leen jox considération bu rëy lool eh, ku mel ni cheikhuna cheikh ahmad bamba ca ba muy wax a'immati fi lfiqhi malikul ali wa shafii wal xanafi wal xanbali ne samay njiit samay royuwaay ci fiq ñooy eh, imam malik ak imam shafii ak imam abu xanifa ak imam ahmad ibnu xanbal am na feneen sax fu muy waxati ne warastani fiqhal imaami maliki alayhi ridwanul karimi al maliki nafaatani lii kunta bil manaafici wa qudta lii fiqhal imaami shaafici wajjahta lii minka munan latifa wa qudta lii fiqha abi xanifa yaa xayra qaa'idin xamidin xumida wa qudta lii fiqhal imaami ahmada ñii dañu siiw gën a siiw Eh, ci madahib eh, islaam yi wala ci madahib ahli sunna wal jamaa moo tax sëñ bi eh, di wax ni yow yàlla donn loo nga ma li nga xam ni mooy madhabu imaam malik donn loo nga ma madhabu imaam malik waxati ne ko it nag jariñ nga ma te yàgg nga ma taxawe ci di ma jariñ waaye nag ommatal nga ma bokk na ci njariñ yooya ommat nga ma ommatal madhabu imaam Shafii ma xam ko lool comme ni ma xamee madhabu imaam Malik e, waxati ne ko it e, yow yàlla jubal nga ci man ay mébét yoo xam ni mébét yu sew la samay mébét yu ma mébétoon mu doon mébét yoo xam ni yu jafee woon a am la waaye yow yàlla indil nga ma ko xëccal nga ma ko te bokk na ci mébét yooya mooy ni ommatal nga ma madhabu imaam Abu Hanifa ba moom it ma xam ko ni ma xamee madhab imaam Malik e, ba tey it mu ne yow yàlla yow mi nga xam ni yaay aji woom mate ja yow mi nga xam ni yaa santu yow rek lañ war a sant te yow la ñuy sant it ah baaxe nga ma gannaaw ba nga ma woom li nga xam ni mooy madhabu imaam Ahmad ibnu Hanbal mm-hmm. kon lii sëñ bi ba muy wax lii tekkiwul ni lii ñeenti madahib yi rekk ñoo am waaye nag la mu day wane rek ni madahib yi ñoo gën a siiw te dëgg la ñoo gën a siiw wa illa madahib yi bari woon nañu am nañu ko yeggale ci ñaar fukki madhab ak ñett ñii ne ñaar fukki madhab ak juróom-ñaar ci madahib yi nga xam ni yépp rek dañ doon askano ci ahlu sunna doonte yi fi des mooy yii nga xam ni ñoo fi des mooy ñeenti madahib yii yeneen madahib yi nag yu mel ni madhabu Sufyaan ath-Thawri madhab la woon boo xam ni amoon na cay jamono danañ ci ñëw incha allah cib jataay moom mu doonoon mbokkub daarab imaam Malik dooni moroom jàngandoo ci ay sëriñ yu bari amoon na madhabu boppam amoon na it beneen madhab bu ñuy wax madhab layis ibnu Saad al misri lay si moomu madhabu boppam la yoroon moom it mbokkub daarab imaam Malik la jàngoon nañu ay naataangoo lañu ñoom ñaar sax nag ñoom lañ daan tëkkale ci seeni jamono hmm. ba tax am na sax yenn boroom xam-xam yu ne lay sa sax moo gënoon a xam fiq Malik am na ñu daan wax loolu hmm. eh, sunu sëriñ yal na ko yàlla may gudd fan lool may ko lool te defal ko qabul di cheikh Mouhamadul Muntaxa eh, mas nañu di waxtaan waaye dafa mel ni moom it daa xaw a jeng jëm ci wax jooju ne lays af min Malik waaw moom it dafa mel ni daa gën a jeng ndax yàlla da nattu moom it mu sopp lays lool bëgg ko lool ba xaw a jeng jëm ci wax wax jay wax ni lays afqahu min Malik lays daa bokk ci ay soppeem moom yal na leen yàlla boole eh, yowmal qiyaamati ñu doon fa fay dëkkandoo fii jannatil firdawsi kon lays moom it euh, amoon na madhab comme niñ ko waxee zamilub imam malik la woon amoon na beneen madhab boo xam ni ñu ngi ko daan tudde madhab al awzaa'i al awzaa'i madhab la woon it bu yaatu lool euh, wàllu Cham euh, te Cham tey moo làmboo Syrie ak Jordanie ak Liban ak Palestine ak Israël loolu lañ daan wax Cham Euh, mazhab booba moo fa ëppoon doole ci ay jamono mooy mazhabub awzaayi moom it zamilub imam malik la xaritam la mbokkub daaraam la woon euh, amoon na yit beneen mazhab bu ñu daan wax mazhab abu sawr abu sawr taalibeb imam abu xanifa la woon waaye mujj gi mu ber mazhabu boppam amoon na beneen mazhab bu ñuy wax mazhab ishaq ibnu rahuya ishaq ibnu rahuya moroomub imam ahmad ibnu hanbal la woon ñoo daan ànd ci lu bari daan defandoo lu bari jàngandoo ci ay sëriñ yu bari moom Isxaaqa moomu amoon na madhabu boppam moom it jamono ji dox ba madhab ba mujje moom it gent raaf comme na madhab yee ñu tuddoon léegi gente raaf amoon na beneen madhab boo xam ne madhabu Sufyaan ibnu Uyayna moom it madhab boobu it eh, moom eh, mën nañu ne eh, mbokkub daarab imaam Malik la waaye it rakkub daaraam la ndax imaam Malik moo ko mag magub daaraam la doonte daje nañu ci ay sëriñ yu bari. Mm-hmm. Eh, moom it mazhabam amoon na mu gi mazhab ba dal di gent raaf. Eh, amoon na it eh, beneen mazhab bu ñu daan tuddee mazhabu abu yuusuf doonte la mu gën a fese moo nekkoon taalibeb abu waaye dafa amoon ay aara xaasa yoo xam ni am nañu ko tasnif sax ne dafa amoon mazhabu boppam. amoon na beneen mazhab bu ñuy wax mazhab abu jaafar al tabari abu jafar al tabari ki bind tafsir jaamiul bayaan fi tawili aayil quraan muy tafsir bu màgg boobu moom it daa amoon madhabu boppam boo xam ne amoon nañu ko topp ci madhabam eh, comme ni ñuy topp imaam malik ñi ñiy topp imaam shafii eh, ba tey amoon na beneen madhab bu ñuy wax madhab daawud abnu ali al asbahaani mu doon madhab bi ñuy tudde madhabu zahiriya mu doon mazhab bu fesoon lool it ci ay jamono amoon ay gox yoo xam ni fa la ñu fare woon amoon fa doole amoon fa ñu leen topp ci ñu baree baree bari mu doon mazhab boo xam ni mën nañu ne sax nag ci mazhab yii ñu tudd nii eh, nga xam ne dañu mujje gent raaf eh, moom moo ca mujje gent mujj caa raaf mm-hmm. eh, ndax yàgg na Andalus lool yàgg na Afrique lool ba tax na am nay kilifa yoo xam ni bu ñu leen tuddoon Eh, dañuy wax ni ñoom ci masa boobu lañ bokkoon bokk na ci ñoom ku mel ni ibnu arabi as suufi moom madhabam moo doonoon madhab eh, daawuda eh, ibnu ali al asbahani al zahiri ku mel ni xumaydi borom al jamu bayna saxiixayni moom it ci mazhab boobu la bokkoon ibnul arabi al maliki bu siiw boobu borom ahkaamul quraan mm-hmm. moom it baayam ci mazhab boobu la bokkoon abu xayaan al andalusi bi bind euh, tafsir al bahrul muhit moom it ci madhab boobu la bokkoon même ibnu malik bi nga xam ni moom moo euh, bind euh, alfiyatu ibnu malik ca madhab boobu la njëkkoon a bokk gannaaw ga mu bàyyi ko nekk ci madhabu malik gannaaw ga mu jógee ci mazhab malik dem ci mazhab shafii ba nga xam ni jaxasoo woon naag eh, imaam nawawi ba bokk ak moom jenn daara ja ñuy jàngale eh, kon madhab la boo xam ni madhab bu fi yàggoon la waaye ka gën a siiw ci ñoom nag xam ni téerey madhab bi usuli madhab bi xawaidi madhab bi yépp moo ko tënk mooy abu muhammad ali ibnu hazm al zahiri al andalusi nga xam ni mu ngi faatu atum ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn eh, kon eh, madhabu zahiri madhab la bu siiwoon lool eh, la mu gën a amee ak yaatu nag par rapport ak yeneen madhab yi ñu tudd mooy ni madhabu zahiri seeni téere daf fee nekk ba tey seeni téere yi fiq ngi fi ba tey seeni téere yi usul a ngi fi ba tey te fekk na madahib yeneen yooya nga xam ni dañoo gent da nga fekk seeni wax ci biiri téere ci biir téere yi alxilaaful aali téere yu mag yi sharaa yu mag yi surtout shuruxu xadiis yi da nga fay faral di fekk seeni téere mu am yeneen ñaari madhabit yoo xam ne yu siiw la donte sax nag madhab yooya raafu ju ñu ngi fi ba tey Eh, ña ca ña ca ña am na réew yoo xam ni ñoom ñoo fa ëpp ba tey jii te bokkuñu ci almadahibul arbaa te fekk na sax ni eh, ci dëgg-dëgg bokkuñu ci ahlu sunna wal jamaa waaye soriwuñu ahlu sunna wal jamaa it ñu leen jege lañu dañuy jël ci ahlu sunna lu bari ahlu sunna it dañuy faral di jël ci ñoom te mooy madhab az-zaydiya madhabu zaydiya nga xam ni ñu ngi eh, implanté woon yaman madhab booba ca kañ ko askane mu sosoo ci moom mooy zeyd ibnu ali zeynil abidin zeyd euh, ibnu ali ibnu al xusayn ibnu ali ibnu abi talib kooku ñu naan zeynul abidin di doomub xusayn di taawam euh, zeynul abidina moomu doomam ja doon zeyd kooka ay toppeem ña nekk ci yoonam woowa donte dañu ay chia lañu mm-hmm. waaye seenu tashayyuc du tashayyuc jàmmaarloog ahlu sunna tasawoo mhm. tasayyox la goo xam ne gu déggoog ahlu sunna la gu déggoog ahlu sunna la ci lépp ñoom it am nañu madhab ba tey jii ñoo nekk yaman mu doon madhab bu yaatu boo xam ne la bind ci ay téere bari na seeni téere ahlu sunna dañu cay jariñu ñoom it ñuy jariñu ci téere yi ahlu sunna bu ñuy wax joxe misaal ci ñoom ku mel ni Shawkaani mu siiw mi ay tafsiram ak ay téere yi mu bind ci eh, ahkaam ahkaamul eh, ahadis aw ahadisul ahkaam eh, téere yu am solo la ku mel ni sanaani borom subulu salaam moom it foofa la bokkoon ku mel ni almaqbuli ku mel ni Mouhamadou ibnu Ibrahim al Wazir ñooñu ñëpp ay zaydiya la ñu woon kon li tax ñu tudd leen eh, mooy nii du ñu ay ahlu sunna ci askan waaye nag soriwuñu ahlu sunna ndax juboo nañoo ak ñoom lool mu amaat beneen madhab boo xam ni mu ngi am ba tey mooy madhab al ibadiya al ibadiya boo demee ci Oman jee nga xam ni moo nekk ca golfe bi frontière ak Arabie saoudite ak yooyu réew ñoom it am na nañu madhabu fiq ka nga xam ni moo nekkoon eh, seen eh, njiitub madhab eh, ci wàllu fiq mooy jaabir ibnu zayd jaabir ibnu zayd te ñu gën ko miin ci abu shafa ku dem ci téere tafsir yu mag yi da nga ca gis ay waxam yu baree baree bari moom it am na considération bu rëy rëy rëy ci biir ahlu sunna doonte nag ñooña nga xam ni ñoo nekk di woote woon ne ci ngiram lañu nekk ñooña ay xawaarij lañu woon ci as ay xawaarij lañu woon doonoon ñoo xam ni jubawuñu woon ak imaam Ali ibn Abi Talib jàmmaarloo nañoo ak moom xeex nañoo ak moom jataay nañoo ak moom jàmmaar moom jàmmaarloo yu baree bari ñooña di al ibadiya e, seen ngir ci fiq ñu ngi ko wéer ci jaabir ibnu Zayd abu Shahsani taalib ibnu Abbas te eh, mazhab booba it mu ngi am ba tey mu ngi dox ba tey eh, am nañu ay téere yu baree bari yoo xam ni eh, taalif nañ ko bokk na ca ba ca gën a siiw téere bu ñu naan charhu niil nga xam ni ñaar fukki mujallat la ak ñaar ci fiqhu al madhab al ibaadi kon yii madhab ñooy madahib yi gën a siiw ak madahib yi nga xam ni ñoo raafoon ci biir ahlu sunna wal jamaa sëriñ Abdoul Ahad Sané jërëjëf mbokki téléspectateurs yi ñuy topp ci jataay bi nga xam ne moo di xawlal madahib al arbaa yaakaar naa ne leer na ci li mu ubbee woon jataay bi ci ma mazahib yi nga xam ne ñoo am te ñaar fukk ak nangam indi na leen andi seeni tur ak seeni cosaan mu mel ne incha allahu rabbi suñu jataay bi di ñëw danañ ko gën a xootal gën koo yaatal fàttaliwaat bokk yi rek na ñu ngi ànd ak ñun fii ci Euh, daara yi euh, Cheikh Mouhamadou Mourtal Mountakha ji nga xam ne moom la El Hadj Mën Njaay jongu liggéeyal lislaam ba mu àgg mu teg ko ci loxol Cheikh Mouhamadou Mountakha mu jëli sëñ Abdou Lahad Sané ca Thiès indi ko ngir mu toog fi di jàngale euh, noonu mu ko defe woon ci ak ndawam ñu ngi koy sant baax di ko gërëm xam naa nu ngi koy bàyyi rek mu tàggatoo ak mbokki téléspectateurs yi. ci tënk yi ñooy madaahib yi nga xam ni. wala yi ñooy yenn ci madahib yi nga xam ni moom la moo mosoon a am eh, ci taarix eh, ci taarixu ahli sunna wal jamaa mu doon madahib yoo xam ne yépp rek comme ni ñu ko xamee seen delluwaay mooy alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallama donte yàlla dogal na ya ca des gën ca siiw mooy ñeenti madahib yi am tey comme ni ñu ko waxee woon ca njëlbeen ga waaye it yeneen madahib yi ba tey seeni wax ñu ngi tasaaroo ci biir téere yi fiq yu mag yi eh, amut benn wax boo xam ni waxoon nañ ko lu dut nii da ko fekk ci téere yooya waaye nag la ca la ko wuuteeg ñele wuutaleeg ñele rek mooy ni amuñu tey ay atbaa ay topp yoo xam ne dañuy man di wax ni ñun ci madhabu sufyaan la ñu askanoo wala madhabu athawri la ñu askanoo kon incha allah eh, ñu ngi leen di dox di daje ci yeneen jataay yi di ñëw incha allah ñu leeral eh, lu gën a yaatu ci lu aju ci madahib yooyu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa